mbokki Sénégal lamb dafay dekkiwaat le 4 février ci arène national Gaston production ne damay indiwaat claf ci la ndaanaan yu mag yi jaaree woon yéen a koy fàttaliku. mbokki ren jii nag Gaston production jël xale yi gën a ràññeeku ci seen génération du xam ngeen caatu yoof ndaanaan bi moom la jël daal di koy boole ak njaaytin gàmmu gay dina fa jàkkaarloo ak caatu yaraax mbokki yi du Sané jàkkaarloo fa ak njaga doole booy jaxaaw dina fa jàkkaarloo ak garga waaye mbokki yi Gaston production du yem foofu bés boobu faaw ñu bootal ko grand combat bu am maana Zarko doomu Grand Yoff xale bi ñëw perturbé lamb ji yëpp doon daanaan kullu fadilin la Gaston production jël daal di koy boole ak l'espoir de Guédiawaye ñaabu ndaw xale bi nga xamante ne jàmbaar la ndaanaan la champion loolu yëpp nag mbokk yi ngeen mën ko am en live pay per view ci seen affiche point com 8 virgule 99 euros dong nga mën a seetaan lamb ji en exclusivité ak ay image yu amatul fenn ciy Gaston production bu fekkee mukk fu lamb di jooyee te salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo saa su ne say programme Lutte TV tey nag jëmm ji ñu jàkkaarlool nekk jëmm ju yéeme jëmm ju yàlla may ah tudd Serigne Saliou Dieng nekk na ko xamante ni tey dafa yëngatu si wàllu ñaan waaye nag yaakaar naa balaa ma yëngatu si wàllu ñaan am na jaar-jaar am na fu mu jot a jaar avant rek dañ koy dalal nuyu ko bàyyi ko mu nuyu internet yu koy seetaan à travers Lutte TV Serigne saaliw maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziare. salaam wa rahmatullah Eh, di leen siyaar te di leen ñaanal jàmm di nuyu nag waa internet bi yëpp eh, di la wax ne comme ni nga ko waxe ñu ngi yëngu ci wàllu ñaan waaye nag am na fu ñu jot a jaar avant ñuy egsi fi mooy di nuyu nag waa axlu lamb lamb nag li ma ci def bari na waaw waaye du lambu tey nag parce que lambu yi ñu doon def ci nga doon xamee góor dëgg da nga doon fanaana bore ba bët set nga xam ne boo egsee dañ lay reyal béy indil la ay ser yaay tan ser bi nga bugg a ngemboo boo daanoo ñu reyal la béy wa ilaa ñu reyal la béy xam nga loolu moo tax gën doon génn di njàmbaaru góor ñu reyal la béy teral la te xamoo ndax ñi ngay dajale yaa leen di daan yàlla nag doon na def sutura boo nga daan leen ñoom ñëpp lu fukki nit ci benn guddi daa di jël nag kii ga eh, nga xam ne bugg la bu moo ñu ci bayoon parce que ku daan day am ñaari téeméer ku daanu day am téeméer gara combat bi yëpp 1500 lay nekk kon eh, lamb yooyu nag nekkul ak lamb yi ñu gis tey booba it lamb booba de doon am ay takk am ay sëriñ waaye du sëriñu léegi nag dégg nga doon gis nit ñu ne la yaa ñëpp xool ko ne ko yow kii moo lay daan mais ñu tuur ko coow tuur coow nga xam ne bu bii tool buñ ko béyee bii tool béyuñu ko ñuy buddi ñax bi ci tool bi di ko sani cafale ñax moomu lañuy tuure nit coow nga xam ne bu arbit taxawee sax nga daanu arbitre du accordé combat bi day continuer parce que du ko gis. du gis jël bi. kon des fois ñu gis arbitre ñi naan ne arbitre dafa juum ñu naan nañu dem vaar kon yëpp looloo koy waral. loolu moo koy waral. loolu boo ko booree kakataar lamb bi day bennu arbitre bi am na lu ñu ciy liggéey loo xam ne da koy boonu ñun def nañ ko defatuñu ko te lay mag yi yëpp dañuy fanaan ba set ñu ne la diw moo lay daan waaye xaaral ñu tuur ko coow. Hmm? léeg-léeg sax mu juum lamb bi nekk lamb bu resempal mu juum door arbitre bi jox la ndam waaw. loolu yëpp dañ koy def si si si mystique. def tuur coow loolu mooy tuur coow tuur nga ko coow li waaw. lamb démb mbër yi ni nga ko waxee rek xaalis bi bëri waaye njom ji fula ji ngar mi gi léegi nag ay million la ñuy teg si table bi waaye dafa mel ni pour nga gis mbër jafe na. millions la ñuy teg waaye doo gis mbër mbir boo xam ne ak soo la moon buutambaay wala galgal lamoon moon wala caxabal mais lambu demu da nga doon gis nit mu takk ngembam liiñ koy may ay saafara ay juróom lay nekk mu dem lag fecc fecc bu neex ñëw ci nden yi ñëpp sani ko sar pour mu ngemboo sa sar moom ngay bugg nga xam ne lambu dembu euh, bokkut ak lambu bi xew tey tey la million bari waaye tey la amateur ñàkk a dund lamb toujours mbir rek da ngay boo demee ci àll bi da ngay gis bakk yoo xam ne comme ñu ñu doon kañe naan kaane jar da laaj mosal boo mosee da nga xam mais sama benn doomi bajan nag bi nit yi di wax ne kii du dem kii ngeen samp bay ko lii du dem drapeau bi dinañ ko jël bi ma ko téye lu mot ñeenti at dafa xëy rek ñëw ci peelu sama kër nden yiriij mu ne nit boo koy yàq te yàlla yàqu ko eh, du tax mu yàqu ci laa jële bag boobu nag ñuy wax kuy laax géej sa sànq lay jeex kuy laax sa sànq lay jeex xam nga géej gi moom mën na ko la loolu moo indi bag boobu nag mais amoon naa bag caane jardalaaj mosal comme bu ma demoon fu ñu ma xamul di laajte kaane jardalaaj mosal mbir mi ma yoroon ñoo koy labangom loolu la doon bakku bi ma ñëwee it loolu laa continuer di bakku mais kaane jar dalaaj mosal mbay fay moo ko foli sama doom bajan la moo wax ne comme ni ngeen ko doon wax naan kii ngeen teg nangam nangam du ko du ko mon bi ma ko mënee nag mu indi kuy laax géej sa sànqalay jeex boo mu toll nii bu ma demee ci lambu mbir ku ma gis rek amateurs yi day dem ci géwél yi ne leen kuy laax géej kuy laax géej ñëw na dafa li wër bawol kon bëri nga fa ay bëri nga fa ay ay ay ati ati ati at. li bawol bore naa fa bore Saalum comme Saalum laa dëkk lambu Saalum yi moom boofu moom dama koo darale ay at. ay at. ay champion li commencé mbapat yi doon am mbaabaan dem ñaar gel dem eh, Mbeyeen dem Cooy dem Njuum dem Njoobeen ba ba ngay dem Kaffrine yooyu waxuma ko ba yooyu moom waxuma ko ñooñu buñ ko xoolee danañ xam te it dañoo waxoon ne dama am xam-xam bu may def parce que man amoon naa ŋoŋe yoo xam ne bu ñu jaxasoo bu ma lenee tip bu ñu seen yaram suñu yaram yi laalante sa yaram yëpp ay dee hmm. waaw. loolu woon. galaaj la am na lu séeréer di wax ongo na dax yaakaar naa xam nga ko benn gunóor la am nañu boo ko laalee rek yaram yi day cramp nii lay def mais yooyu yëpp amul ci lambu tey bu nit euh, xam nga dafa am guy yoo xam ne fii lañ doon den bu nit jongoon lañ cay dindee foofu lañ koy denc tur gur guy googa da doon am tur guy googa ci nga ko doon jële boole ko gunóor googu mais boo sukkoon sa botu om tak seengoor gi wax ci ay séeréer jat termine terminer ko oxuuma seer naaga a yoon yo um. ba waago ga gaci es <laughs> daa di ko tak nit ki bu leen ñaanee bu ne sa sa tarab day mujj kaa mujj kaa godoof day lompoñ suk suk du mën a dem yaram yi bu la laalee rek yaramam rek fay de loolu yéeme na de loolu loolu kon loolu mu ngi am ba léegi nii. mu ngi am ba tey. mais mais sëriñ yu bëri xamuñu ko. xam dañ koo xam parce que jaaruñu ci lambu. teñ bi li nga wax ni daal en tout cas na kon euh, mbër yi kon war nañ la mën a seet si wala même bu dul mbër sa loolu dafa mel ni galaaj loolu galaaj bu garaaw la de. loolu galaaj bu garaaw la loolu. nekkul galaaj bu garaaw la waaye nag pour ma defal ko ku xamul parce que boo ko defalee saa saay day dem. di continuer di ci def njaaxum parce que boo bu seen yaram yi tegal taw rek kooku yaram yi day dee. kon boo ko defaloon kuy def naka si suñu tey mën na. tafu nit kon hmm? moo toj réew mi de. loolu moo tax nit yi boo ñëwee wax ko ko da lay wax ne déedéet jeex na même bu fi nit ñëwee xaw ko xaw ma ne bay waxee ma ne loolu jeex na jeexal naa ko parce que loolu boo ko defalee bandi day tax réew mi waaw beneen bi mooy liñ doon wax au jaj ci oom nga xam ne basi bu demee ba ci kaw ba bu yàgg reen bi nekkoon lu suuf day demete ci kaw dootul laa suuf xam nga loolu lañ ko doon liggéeyee au jaj ak léeg-léeg nga gis bukki mu dox ci àll bi bu nga xam ne dafa taraxiis xam nga bukki li ko daane du caaxaan pour nga gis bukki bu daanu loolu moo dul yom day tarxiis loolu danañ ci defar sengoor nga xam ne mag yi doo doon toog defaral la ko ba mu yegg bi mag yi daanaka wañee ko maa koy defaral sama bopp sama xele yi ma am foofu yëpp maa leen koy defaral mais boo laalee rek jëm nga ci suuf beneen bi mooy bu ab nag juddoo sengoor bari na de bu am nag juddoo xam nga nag bi tànk yi ci kanam du mën a jóg day day mel ni ku bugg a nampu mais tànk yi du mën a jóg tànk ginnaaw yi ñooy jóg foofu muy sukk danañ fa defar Senghor Senghor bu ay xale toogee di fo di door ab di sànni ay yet yet tak ci kaw wala mu dal ci garab yi def dara leen ñu yooxu yet boobu dinañ ca defaral galaaju mbir ay Senghor ba tey. kon Senghor na façon. Senghor bëri na façon. mais misiku ak misiku làmb tey par rapport te mbër yi takkaay yi di bëri te dafa mel ni yéen bu jëkk takkaay yi bëriwul woon comme nii nii. du dara ñooñu sëriñ yi parce que dañuy lamb ay sëriñ sëriñ yi ñuy dem nag defa bari sama classe bi boo xam ne yow mbir bu mos da jaar ci lamb borewul xamul jat yu ñuy duggee ci lamb xamul jat yoo xam ne boo ko waxee fekk ay góor ci biir góor yi yëpp dañuy nekk ay tappango góor foppande fa yo buj mu ref sunt loolu reen yiñ koy samp ku ñoom ku yaarul ci lamb mënoo koo xam nag te eh, galaa ji day bari bari bari bari bari ba mu jaaxal ma parce que man ñeenti butel rek laa daan am benn butéel bi mooy ay cat benn butéel bi mooy ay nit guddi xam nga loolu dafa am santaane bu yàlla wàcce wàlla ci nit yi beneen butéel bi mooy fu mën a foo mën a jaar dinaa yóbbu ndam li daraapo bi maa koy yóbbu daraapo bi boo génnee fii dinaa la ko woon daraapo Sénégal ngay wut wala dëkk bi ngay borel loolu nag dafa am béy yu ko mon nga xam ne danga koy jël ca yàpp ma ngay jox ay ginaar ba nu xiccoo ko boo ginaar gi daw ba raw ak loola xam nga ginaar eh, fu ñekk fu ndeb ne cuuc yi boo leen ko sanee dañ koy xiccoo xiccoo ko ganaar bu mag ba xam nga ne ganaar bu leen upp dool de nag ñëw jël ko daw ak moom boobu ko ci boobu boobu nag nga doon jël boole ko ak lii ma lay wax muy ñaareelu muy ñetteelu butéel bi beneen butéel bi nag mooy góor ak jigéen dañ lay bugg mooy bay ngorom sap sap wo fa nena safaare fu góor kam bugo safaane o safaare fu góor bayre waay bayre xa jang jang xotaami baynu bayre nu rew fu góor fop ɗumu bayre waay bayre xa jang jang xotaami bayre nu rew fu góor fop ɗumu boo ko baamoo loolu boobu boobu bu teel <laughs> beneen affaire la nga xam ne boo sottee ko ba pare bu mu des rek euh, ñoo di yóbbu yóbbu ndam li moom ngay jël wut mbaal yi nga xam ne moom bu jën bu ma li sànnee mbaal moom la ñuy ñoddi mbaal boobu ngay kiy boole. am na bagaasu lamb am na. bagaasu am na de bagaasu ngembit am na xam nga aloom bu ñorul dara mënoo ko door ba mu daanu. ko ñu ngem bagage yooyu lañ ci doon def ak ay rand nga xam ne moom boo ko lalee ngemb mënoo ñàkk mukk faw nga am faw nga am tak mbër ak takk am na mbir bu ma amee combat du ma takk mbir mi te nekkul ne damay arbitre bi da leen di xool parce que kon du bëre kum ndate kum kumba date kum dafees ah. boo ko takk yooyu boo ko takkee mbir tenku mbaam dinañ ko ko takke am na takk yoo xam ne ci nosu gëlëm la yaay omat mbir mi ba fu la neex nga daan ko walla nag yu mag yi nga xam ne dañ doon am doole xam nga dañ doon bun bakkan yi def ci buum danañ ko takke buum yooyu kalbu yii di xaj nga gis ñuy dox fii nit yi jàpp leen buum omat leen loolu sax nit yi nga xam ne dañoo am ay soxor ay ay ay ay jëkkër te xaw ci ñoom léeg-léeg ñu ñëw fii sonal ma bu ma defal leen ko waaye mbir mi yaa koy topp yaa koy jàpp def ko lu la neex moom ngay boole rek yu liir laltaayu liir te ref da pax moom nga doon jël boo ko booleeg bagage yooyu mbir mi nu la neex nga koy tërale nu la neex takk ko bu dee ay door nii bu ñu diw du xamoon a door danga koy takk bu loxo yi du jog nii lay day el di xool rek bu la xewee da naawtalit dafa am. mbër yóbbu fotu mbër. lu day am mbër ñëw fii signature wax a wax jour si mun. suur ba boo ngeen gisee da nga yaakaar ne du kii moo doon wax waaw da nga yóbbu fit bi ci boppu ñàngoor lañ koy liggéey ci bopp bi lañ doon liggéey. loolu boo ko liggéeyalee mbir sox ko ci boppu ñaamboor mu dem def ko fuy sedd da ngay bay nag bu ñu ne arbitre baa ngi leen di xool am na ñox sax alba yoo xam ne boo fa nekkee da ngay jën galaas bu bari def ko ci wallaay kooka du du du bëre boo bu boo ko teelee def du la combat bi bu gisee mbir bi day tiit du day afale sëñ Saliou nag dafa nekk ci loo xam dundul làmb jaar ci làmb waaye xam naa dafa muñ muñ muñ muñatul muñatul muñ affaire bi parce que xam na gisatul bëre gisatul sëriñ gisatul cosaan gisatul dara ci làmb gisatuma bakk yu neex gisatuma mbir mu saf xorom gisatuma mbir ñu bore daal bore dangay jàpp nit door ko door a door a door bu yàq ko mais bore bi maanaam bore bi du des jàpp nit riñaanu ko ñu jàppante mu weyale ko ah? loolu yëpp amatul pad nit dawal nit mu pad ko mu mel ni comme nag daane ko taxaw fi mu taxaw du yëngu sax lamb yooyu yëpp amatul. ban mbër nga gis jamono ji daan si gis sa bopp si mbër yi nga jot a gis fii nii si génération yi fi yi fi jot a nekk. mbër yi fi nekk nii kii ñëw rek nga xam ne bore na def na bore ñi mbir yi may siifur mooloo day bore ba ma yëg ne bore am na mbir séeréer bi tudd rek rek day bore ba ma yëg ne bore am na. Euh, bala Gaye mën na bore lool waaye day yàq bëreem waaw même rak bi mm, waaw mm-hmm. mbir mm-hmm. dañ koy xool di ko peese gis nga sa loxo yi mm-hmm. ci ngay peese mbir di ko peese boo bu ma gisee euh, kii gu mag gi rek euh, baaraamu dey bu mag bi bu ma ko gisee rek mu koy bos xamal ne dinaa ko door dinaa ko daan day ñëw wala ñëwul parewul pour ñëw bot bot yi ak loolu laay boole di ko xool bu yëngoo rek bu ma ko dooree mais mën nañ bore lool wax di des mais dafa mel ni loolu yëpp sax ñu ngi koy jàngal mbëri non duñ dañ ko jàngal parce que ñoo doon bore yorul leen mbir bu def mbabat ba magat yoru leen ba mën leen koo wax yàgg naa koo wax fii eh, ñu dekk géejawaay wax naa leen ko ne leen ko suñ seen mbir bi bu ma ko yoroon at kenn dootu ko daan waaw. di nga def ci moom xam-xam waaye di nga def ci moom tamit bagage. dinaa ci moom bagage waaye dinaa ci def ci moom xam-xam mooy laaw bi muy laaw day perte. waaw parce que bu dooree laaw nii xam nga day wàccewaat kii gi day ubbiwaat den bi perdal bi bala ngay di perdal looloo koy waral mbir bi bu dooree même bu dooree laaw nii kurpeñ bi nii lay dellusiwaat garde bakkan bi waaw même buy dooraat laaw nii du tax mu bay bi moom nag day ubbi den bi bu ko ubbee amat fi yëpp amatul garde te ponkon muy beese saa wee kilo nag bu la dooree loolu yëpp lam bi dañ lay wax na saf mbapat tiim la ak ay yet mm. waaw xam nga ñun dañ doon gas suñu tànk yi ba doo mën a xam nga mbir fi mu toll nii day arrière mais ñun buñ la doon defal mbapat taxawal la pour nga nekk mbir dañuy ges sa tànk yi amatul amatul boo ko boo ko defee jàmbur léegi ñu tij la gas tànk yi nga moytu wala nga defaas wala nga fay kooku door la ba toj sa bi balaa ñu nay jox bagage dañ lay yóbbu nu ngol na ñu nga taxaw mu taxaw ñu gas sa ba tànk ke yéen ay toyo taay toyo li ngeen peese ñu ne acca bon mbapat bi safatul lambu gaañante bi door door door ba kooka kii mbir mën nga kaa door benn coup rek mu mu daanu rek. Balla amat na combat de moom ak Tapha Tine. Tapha Tine damay bugg rek Tapha Tine bu muy bëre damay bugga puus Tapha Tine taxaw ci taay bi mais tànkam yi muy boole mooy yàq borem waaw te it day xaar rek xaar xaar rek xaar rek boo ma xaaree ci door keroog bu ma ñëwee damay indi song boo ma xaaree ci kii moom boo xefee rek mu song la danaa la door ba nga iskant mm-hmm. mais Tafatin amul ginnaaw. ginnaaw gi des. des na lu bari conseils yi des na Tafatin fu mu bari ñu jàpp ko. waaw pourquoi ñoom ñi ko yor du ñu dem ba duñ ko jàpp fu mu bari jàpp nañu ko. Hmm? waaw boo nga yëg boo nekkee mbir mu mag da nga yëg ne kii dañ kaa jàpp. combat bi mujj de am na comme kilifa gu ma ne deret ji tuuru moo ko moo ko sauvé bi mu gaañoo noonu ba dem aar loolu ko sauvé. Ama Sène dafa yëgul ne. Tafatin du gis. Amet seen yëgul ne Tapha dafa kaawo nekkul bu bayo moo tax Tapha daanuwul bu bayoon Tapha day daanu waaye moo ko jàppaat bi mu ko jàppee la Tapha Tine waat ci moom bu daan ko loolu yëpp dañ koy def ci xelu mbir mbir boo ko dooree mu ñëw ak doole boo la jàppee taxawal boo xam ndax dafa kaawo bu jafandoo si yow xamal ne nekkatul dafa kaawo loolu mbër yi ko sama mbir bu ñaan boo boo ko bu ma la mosoon a yóbbu ngeen jaxasoo jaxasoo waat demay sali arbitre bi mu ñëw ma ne ko saase ko boo eggee comme dañ koo xaaroon saase ko moo ma ku ma nga mos a bugg a gën a bugg bi maa lay daan comme ni moo loo di def boo yii nii ku ma ko mos a def maa lay daan parce que yaa ma ko gën a bugg dama la koy bàyyee boo ma jëlee ma weeru la boo ma ëppee raloos ma ma la te mbir mu ma ëpp doorool bariwul bu ñu laala te boo leen kook nag damay am bagage boo ma laalee moom sa yaram sa séddiit dootul fonctionner. mu nga dëkk nii nga fi dégg na. def naa fi ñaar fukki at ak juróom man du ma toxu ya chaque jour nga dajeeg man may doxantu. 25 ans. maay doxee fii boo Yoff du ma laqatu. Hmm. doo ma wëjal jot keneen. comme li sëriñ yi def mu naan non xaaral sëñ bi dafa jàpp wala yooyu amu si. Oh, man chaque jour nga dajeeg ma ak sa moto bi suba teel biñ may gis ni ay 7 heures 6 heures fii laay doxee ba ca géej gayoof ma toog fa biir do di may biir do ñaan doxaat ñëw. mu ne aussi sa àdduna da nga parce que àdduna simple la bu dee li ñuy def guddi laa koy def. bu ma toogee ba trois heures de matin ma def ko heure yii nii ma nelaw bañ naa ko ba onze heures laay commencé fekk onze jotul sama xarit yu laay waxtaanal bu cinq heures jotee arrêté naa parce que dafa am kilifa yoo xam ne bugguma ñuy dajeek mbogo mbogo bi bu cinq heures jotee rek ma ne leen ku ñëw duma la réservoir ñii ñëw cinq nag ñu may de xam nañu ko loolu boo ko sëriñ yi toxu dëkk na fii suba toxu na daw na. toxu ma parcelle laa dëkk ñi jàkkaarloog man écran bi xam nañu ma man ba ma ñëwee dakaar ba tey parcelle laa dëkk nekk naa fi ker Mbaye Fall doon wut fii ba ma fi amee ba tey parcelle laa nag toxuwuma demuma bu ma jógee fii de ma nga maa nga sama kër bu ma ba ma gisul sama kër gisoo ma fi rek boo ma jotoo ma damaa tukki waaw. maa ngi profito di nuyu sama client ñu ne ci àll bi yëpp di leen wax nag ne duma bay leen jóg moo yombul Sénégal boo xesee jël seen xaalis lekk ko di leen ñaanal yàlla sotalagul boo demee bu la wooxee jotula rek waaw loolu mooy tax léeg boo toogee fen bu am fa weer in foo nga yegg fa parce que da am ñoo jaxasool bugg leen a liggéeyal kon lambu tey ak lambu démb wuute na. am na solo xam naa ne ku la bëgg a jot moom xam naa dina mën na la woo sa numéro rek. pour na ba ma bëgg a jot na ma woo ci 77. 351 double 051. am naa it numéro Tigo. 468 la 96 82. foo ci woote man ngay jot. bu ma woo nag di ma laaj numéro. moom <laughs> kay loolu leer na ku ma woo man ngay jot directement amul nii amul nga jot sama su gay beneen bi mooy li ñuy liggéey muy ndoxu siti ak hémorroïde ñi koy tiraat sama garab man maa koy joxe. yow joxoo kenn mu jaay ak kenn bay naa loolu joxatuma kenn garab muy togaat sama garab. nit lekk ko naan lekk naa ko 15 jours nangam ak nangam hmm. sama garab amul loolu amul 15 jours de hmm. déedéet seer na nag 25000 lay jar ñaari pot hmm. mais amul suba amul gannaaw suba émorite bi day nacc ñëwal toog léegi ma jox la ne nga toogal sama tànkay mën da dox defa métti dafa newi ñëwal ma jox la léegi nga doog ci buti fee 30 minutes diw nga toog bu seddul nga jox ma sa nga dem ma dem. keneen ku ko ñeme waxal. loolu leer na. maa ngi lay bëgg di la ziare. maa ngi lay delloo ziar. xam naa nag jot bi mayewu ko waaye nag bëgg na la aussi invité lit TV pour gën a yaatal waxtaan bi ndax xam naa ne instant yi ñu bëri dañuy waaw xam naa ne jot bi barewul waaye boo may invité dinaa la indil ay champion nag. Hmm. ay marto bi dëkk jaane ay Abdou Ndeb. marto jaane temps yële jël naa ko interview. voilà. ñu sax démb rek ñu ngi waxtaan mooy wax ci lamb bi loo ko xam xanaa yow mm. ma ne ko man buñ bu ñu seetaan la mu ne ci dañ may mujjee yërëm may bore bore bi nu ne dinaa ko tooge nu ne boo yéexee ma door la mu ñu waxtaan nañ ci lu bari mm, wallaay ñoom Cheikh Mbacke maa ngi leen di nuyu mm. Concorde njilaa seem eh gars ay ñoom bu ndaw waaw bu mag bu ndaw ay dansi la Baye Niass <laughs> maa ngi leen di nuyu biir siin yëpp bulwaar yi yëpp leen di bugar joobu njàmbur maa ngi koy nuyu ongo jil maa leen di nuyu sa jàmm yàgg allahu amin jërëjëf sa site bi dem bu nekk ay télé Lig TV yal na nekk télé ay télé télé maa ngi nuyu nag waa mbaabaan maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm waaye dakku ko ci yéen di nuyu waa Ojolde waa ñaar gel Cekeen ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu mbokku Bawol waaye di nuyu waa ahlu lam di nuyu nag journaliste bi Sénégal damay wax ne bu ma waxee ñoom ma ne ne dafa am journaliste bu yaru bu nekk sa kii bu génnee rek ngiñ may ree ñu ne journaliste ma ne journaliste bu yaru baa ngi ni xawma ma turam waaye di nuyu nag lamin Samba di nuyu Malick Thiandoum Malick Thiandoum mooy journaliste foo ko yóbbu rek da yaakaar ne foofu la mu jàmbaar la trop trop trop trop bu ñu waxee rek ma ne leen kii mooy journaliste journaliste day suuf souterrain foo ko boobu rek mu baare rek waaw kon jërëjëf yow itam ku baax nga yal na la yàlla yokk te ubbi la te aar la. yaakaar ba léegi aussi am na palaat boo xamante ne gis naa ko suuf la suuf. waaw am na palaat bu fi nekk bu lis taxaar bi wéyee nit day ñëw ci soxla yoo xam ne mun daxaar guddi muy nag gisaane ramli Ramly nag ku ma xam-xam ne ci sama papa laa ko donné waaw Ramly boo ko defalee nit te mokkal ko boo yeexee nit ka bu muusee sax dootoo ko ñaana moo tax bu nit ñëwee sonal ma ci seet ñi may koy seetaan danañ danañ la ko wax boo ma waxee seet dama lay wax ne ñaari junni lay seet hmm. boo ma waxee seet te rusuma la damay bañ parce que bu ma la seetalee pare na seet bi dana lay génneel sax garab yi nga mën a nga war a sangoo waaw waaye léeg-léeg nag nga gis sa mbasu gum gay boo xam ne xamul ndax ne doomi ram lu tollu mu topp ko naan ram li kay su ma la ramle nangam ak nangam ram bi sax day wax ak moom te doo xam ne ram li bi man lay waxal dafa am ku mën ram li ñu jiiñ ko ko sax lay wax muy ram li doomam dafa gaañu yëggagu ko yëggaguma ko ñu toog mu seetal nit ba pare ma ne ko xale bu góor buy gaañu kan la mu ne ma lii defa wali ji ci gisaane bi ma ne ko ñan ñun ñett ñi ñoo fi nekk jigéen gi man yow te jigéen bi amagul doom doom lay seetlu jigéen gi wàcc ci suuf ne ma ah yow de wax si góor gi yow wax nga li may seetlu kii li mu wax yëpp moom la waaye man doom moo ma tax a jóg ma ne ko parce que doom lay seetlu kon amul doom bu gaañu te ñun ñaar ñi maak yow am na ci suñu doom gaañu ñi ma ko wax ne doomam moom. Ah, mu dem fekk bi mu nekkee foofu dafa defa bay téléphone muy chargé ci ci néeg bi mu dem gis ay appel woote mu ñëw mu ne ma yow kay man nga doon wakk fekk pol la mu ne ma yow ma doon wax sama doom gaañu la ma ne ah, man la gisaane bi li mu wax loolu laa la wax kon ram lii it mu ngi fi lis taxaaru guddi am na waaye ram li nag am na ram li nag lañu doon waaw nga xam ne gis nga ko bilaay bu ma la ram li leen tey danga wax ne déedéet bu ma la ko ram li leen nii danga ne déedéet waaye lépp sampa su gum gay yi mel ni ibu juuf dañ koo yàq parce que li ñuy def ragaluñ ci yàlla te dërëm lañ ciy wut kon na nit yi xamee nit yi man de xaw ma damaa xamatul nit yi dañoo xamatul boroom xam-xam waaw wala déet waaw kon maa ngi lay nuyu di la siyaar di la jaajëfal di la wax daal ne mbir yu ndaw yi am nañ ci ñoom yéene donc xamuñu xamuñ parce que gis naa ñuy dund mbir mu mbir mu ñu jiw xam nga mbir mu ñu jiw fa am xam nga loolu ci séeréer mbir dañ koy jiw ak ay xooxu buy ak kereñ dara du ci sax waaw mbir yi may def xam nañu loolu mbir dañ koy jiw am na dalu xale yu ndaw yoo xam ne xele ba dafa amoon ay doo amoon lu mel ni wolis walla leneen xele ba ma nekk de faatu ci mbootu nga xam ne kaa wax wel rek adaan loolu dal ya mën nga cee jiw mbir boobu mbir moom pare na dina jot sëriñ dëgg mu door koo dindi da ngay gis mbir mu mën a bëri nekk fii waaye du gëli mbapat du génni mukk ci kaw dañ koo jiw mhm. maa ngi lay jaajëfal jërëjëf <laughs> mbokki Sénégal lamb dafay dekkiwaat le 4 février ci arène national Gaston production ne damay indiwaat claf ci la ndaanaan yu mag yi jaaree woon yéen a koy fàttaliku mbokk ren jii nag Gaston production jël xale yi gën a ràññeeku ci seen génération du xam ngeen caatu yoof ndaanaan bi moom la jël daal di koy boole ak njaaytin gàmmugéey dina fa jàkkaarloo ak caatu yaraax mbokki yi Doudou Sané jàkkaarloo fa ak njaga doole booy jaxaaw dina fa jàkkaarloo ak garga waaye mbokk yi Gaston production du yem foofu bés boobu faaw ñu bootal ko grand combat bu am maana Zarko doomu Grand Yoff xale bi ñëw perturbé lamb ji yëpp doon ndaanaan kullu fadlin la Gaston production jël daal di koy boole ak l'espoir de Guédiawaye ñaabu ndaw xale bi nga xamante ne jàmbaar la ndaanaan la champion la loolu yëpp nag mbokk yi ngeen mën ko am en live pay per view ci seen affiche point com 8 virgule 99 euros dong nga mën a seetaan lamb ji en exclusivité ak ay image yu amatul fenn ciy Gaston production bu fekkee mukk fu lamb di jooyee